jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur Top TV rawatina suñu mbokku internet yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di am contentement saa su nekk di teew fi nga xam ne ne moo di suñu chaîne YouTube tey nag dañoo am émission bu important dañu jour spécial pour une personne spéciale waaw muy feete tamit lu spécial moom tey nag dox daje dañoo ñëw sees ki nga xam ne suñu confrère la muy DJ Tino muy feete deux ans am ci animation fii nga xam ne moo di Top FM 97.8 Dakar tey nag dinañ ko sees si mu waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo di carrière am ak tamit entourage ak nan lay dundee ñi nga xam ne mooy auditeur am rawatina ñi nga xam ne ñoom la dëkk acca topp leen ma ñu dem seeti ki nga xam ne moo di di jëtinoo acca sama gars ñi dama ne leen yegsi nañ fii nga xam ne mooy locaux Top FM 97.8 Dakar nekk fi nga xam ne moo di Scat Urbam villa numéro acca yegsi leen waaw sama gars ñi dama ne affaire bi nak surprise la nañ def ndank ndank ndax borom ndaje bi nak DJ Tino mi ngi def lu doy war ci studio bi acca ah gàcce ngalaam émission ndaje bi merci beaucoup ah salaamaaleykum tew tey loolu ak du borom ndaje bi dafa mel na ma am ay ay ay ay ay ay ay ay ay gàtt diggante bi ah. waaw borom ndaje mango

waxal say baax baax ate ah, waxal say baax baax jox naa la diggal oui Fatma Touré ah hello allo allo Fatma yaa ma dégg bu baax koŋ-koŋ nee nga paccax si kër gi Fatma acca ne na fees ni merci merci Fatma Touré maa ngi lay kontaanu bu baax a baax uh, fan mo su fekkee da ngaa takk ya, écouteur da nga koy cekki su ko su ko def boo ko cekkee eh, man ak yow dinañ daal di mën carrément aca naa def dem eh, sama waji aja aca moom jamono ji mu ngi si tapoo di bàyyi xel 97 point 8 Dakar waa kay borom aca bur kii la naa def nii semaine def lu neex nuyu naa la. sista moom fay naa la. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax sant alhamdulilah. waa gis nga tey waa Top TV dañoo ñëw ñëwoon defal la surprise bu gis nga. comme tey déjà dañ ne bis bis bu màgg la. lu lu lu màgg rek mooy xew lu lu rëy rek mooy am ñu bëggoon xam tey kan mooy DJ Tino ak DJ Tino nan la def ba mën a yegg si fii nga xam ne mooy top top FM tey. bon jamono ji di ziar euh, actuellement képp kuy euh, bàyyi xel top TV l'officiel ziar jamono ji auditeur auditrice bon man nag c'est moi DJ Tino animateur top FM 97.8 bon DJ Tino nag euh, ay jaar jaaram bëri na bëriwul 2015 si lañ tàmmalee def rajo mais Safir FM Dakar 16 dans 6 daanaka 2015 jusqu'à 2021 ça fait 6 ans 6 ans yi nga xamanteni ne ni passé nañ ko ak auditeur yi 6 ans yi nga xamanteni ne ni passé nañ ko ak euh, yenn ci auditrices mais nak téwul euh, émission ndaje bi actuellement amagum na 2 ans ci biir Top FM téwul aussi tamit di jiitu noo amagum na 2 ans ci biir Top FM. nga sama mbokk internet yi yéen a ko déggandoo di jëttinoo wax nañu tuuti ci jaar-jaaram waaye di jën nag li ngay def dafa neex lool su ma sañoon na nga doxal ba ci kanam. acca acca mu ngi noonu merci beaucoup Dès que waay tu wi Rau, 88 628 81 81 11 12 minutes mm. <laughs> man est-ce que xam ngeen sax yéen damay toog frankulaay ndax xam ngeen ne kuy wax kuy déglu mooy mbokk merci beaucoup di leen kontaan bu baax a baax. Aja Tam FM Dakar 97.8 aja fan si siyaar naa leen waaw waaw. <laughs> soxna si waaw gis nga di je xol yi sedd na xol yi féex na mbaa xam nga ne yaa fi ne waaw gis nga lii moom euh, juste euh, lu ma si lu ma si wax euh, lu nekk suñu suñu suñu deret la mhm. parce que depuis temps booy ba tey avant ñuy def rajo dañ ko rol foowee mhm. xam nga nit kenn ku si nekk luy nelaw sa bis bu yeewoo ret foo jaar di nga si dox te di nga si wax mais lii moom lépp luñ ci def lu naturel la si ñun di je nga yag ci yaa ko bëgg ba nga nek ci di exercer mais yan jafe-jafe nga jankonté ci li nga xamné moy animation bi. Eh, bon eh, animation bi nak des fois mo am jafe-jafe des fois do am jafe-jafe. Mhm. mën na wax ni eh, peut-être suma ci dund luma met xeyna ben na lay doon wala wala ñaar. mais aussi tamit lepp luma ci dund tamit aussi yenen ni lumay neex lay doon parce que nit ki bo bëggee dara même bo ci dund jafe-jafe sa lo du la parce que yow yaa yow yaa opté pour doon animateur parce que mbir mi bëri naa xaaxaam diñ la dinañ la gàjji dinañ la woq dinañ la xuri dinañ la maat mais nit ki boo bëggee dara pour nga gis torof torof du yomb. waa ci wàllu torof torof yooyu for naa ci yow béy ne <laughs> ah xam nga rek ñu dañoo sëpp fu ne la dugg. <laughs> waaw bi nga nekkee Safir FM. xawoon nga faa am ay problème ak euh, borom rajo bi loolu na la demee woon noo dundee woon problème boobu. waaw jamono jooy euh, sant yàlla parce que xam nga nit ki su la yàlla bëggee moom euh, ak ak ak ak ak coono bu ñu la mënti teg doo ko yëg comme te nekkoon naa Safir FM Saly à 2016 17. mais nag xam nga boo nekkee ci entreprise lépp nekkoon sa loxo day am ay siisumaan. Mm. léegi nag siisumaan ñoo jaarul su suuf. di jaxase Tino ak boroom yëf yi borom yëf nag du ma tudd turam mais moom xam na man ma xam mbir mi noonu la dem par si laa quitté euh, Safir FM euh, dem Kaolack Ndangaan Jafla FM. waaw mhm. ah, maanaam tolof boobu nga dund fee nga xam ne mooy Safir nga jóge fa dem fële di Jafla FM dund fa dund bu neex tamit. waa Jafla moom euh, dund naa ko lu neex ah, parce que xam nga nga dem si dëkk xamoo fa kenn kenn xamuloo fa. nga am fa au moins dëkk ba yëpp xam la loolu yombul si animateur parce que Kaolack ba mu fay nekk euh, nekk naa foor animateur bi nga xam ne peut-être ñuy gën a ràññee si biir Saloum si euh, la bokkool jamono joo maa ngi doon def vingt heures vingt deux heures di lundi au jeudi ak samedi vingt heures jusqu'à vingt deux heures mais euh, Saloum moom mën nañu wax ne ba tey jii nii nii nii ñoom dañoo bëgg ci noonu defar retour mais xam nga kenn ku si nekk moom fa war a jaar di nga fa jaar mais foofu moom franchement euh, marqué nañ fa daal suñu suñu suñu talent daal. Euh. noonu la DJ Tino marqué na li nga xam ne moo di empreinte am fee nga xam ne moo di Saalum DJ Tino nga ñëw fii di Top FM Dakar 97.8 bi nga fi doog a ñëw maanaam noo fi dooree woon comme déjà yow yaa ngi animé du lundi au di mm-hmm. émission ndaje bi di def 10 euh, heures à 12 heures.

deux heures si nañ xamante mu doon déglu sama émission avant may dem conver euh, Atlantique muy gis man nu ma doon kàttane sama serveur jógee convergence dem Atlantique mu gis tamit aussi ànd nag nu may na sama serveur par la suite moom moo ma woo ne ma Tino kat euh, bëgg naa man ak yow ñu liggéey mais aussi tam bu ma ñëwee Toub FM moom 15 euh, avril 2019 franchement dama ñëw ñëpp yaatal ma. ba may ñëw Top FM ñaari émission laa fi yoroon muy lundi ak samedi mhm. lundi 22h 1h matin ak samedi euh, ak samedi 17h 19h mais teewul euh, émission du ndaw heure du ndaw mais sans dépenser nit ki li ngay dégager teewul ñaari heure yooyu dama ko ramasser ba ñëpp xam Tino mi kat ramasser na 22h 1h ramasser na 17h 19h ñu ne ma kat ce que gisoo ñu jox la. Euh, émission bi lundi jusqu'à jeudi man la lolu mom si yeen la deset man mom l'essentiel maa ne lépp lu mu mënti doon job moo ma yëg damay liggéey bu jeexee jeex ci la ñëwé après ñu jox ma émission bi lundi jusqu'à jeudi. waaw lolu gis nañ ni comme 4 heures de temps nga def ci semaine bi satisfaction mo tax ñu mën la confier li nga xamni ni ngay am 8 heures de temps ci ci ci semaine bi ci fi nga xam moy radio bi mu dollu am importance Dj Tino ñu gis ne liñ naan euh, dajale nit dafa metti ndax mën nañ ne buñ nee xol yi yëpp sax bokkuñu yem nii ñëpp bokkuñu yem ku ci nekk bokkoo nu ñuy gisee mm-hmm. yow nga am benn esprit ba mën a dajale ay mbooloo ñu nekk li nga xam ne moo di Timtino famille nan nga def ba mën a dajale nit ñooñu ba tey ñu ñu nekk di nga xam ne ne mën naa ne ci yow la ñuy sukkandiku ci sa def-def ak ci say wax-wax la ñuy la ñuy sukkandiku ñoom nan nga def ba ba ba mën a taxawal loolu bon loolu nag euh, sant yàlla naa dama wax aussi tamit euh, liggéey la xam nga nit ki lépp loo liggéeyul doo ko fayeeku aussi di remercier tamit euh, Thiaw Teranga moom mooy si 100 pour cent Tinon Famille bokk si staff yi ziar aussi tamit prise yi Abdou Waaju baax parce que bu lépp taxawee moom la xam nga nit ki boo nekkee si dara boo ko gëmee pour ñëpp gëm la dafay yomb parce que tey jii lépp nit ki lépp looy def na nekk si sa xol ba pare bu nekkee si sa xol bu génnee day duggaat si xol manam xol bu rafet comme mun na ko jappé ne xol bu rafet nga xam parce que liñ né tee nit dafa metti surtout nit ko xamné day woti ci serveur moy sa digënté yeeg ané ñi nga xamné di auditeur yi ak auditrice yi bon man nag euh, sama serveur euh, man damay provoquer sama auditeur di provoquer sama auditrice parce que dañu toll jamono ji nga xamné ne question animation da ngay provoquer maanaam provoquer c'est-à-dire li ngay def yow animateur wala yow animatrice fokk mu dugg sa xolu nit ñi ak sa seen xel a pour ñooy pour ñu yëkkati seen crédit woore day facile dégg nga sànq ba serveur kar kar kar xëy lo loolu du tinoo du me mais si yàlla la aussi xëy na yàlla tamit aussi eh, mu jagleel ma tamit nit ñi dama bàyyi xel man en tant que jeune parce que wax ni heure eh, bu may def ga yomb na yombul xeyna luy heure bi di gëna dem peut être ñu si gëna ko mais dal euh 100 ci no family franchement man di jëtuno li ma aussi ñoom itam ma si mbir mi di leer ci ñaanal gu baaxa baax yeen ma même bu dul diggante euh, cent euh, sa sa ñi nga xam ne ñoo di waa 100 pour cent Tino famille yi am na ñeneen auditeurs yoo xam ne ñu ngi leen di ñu ngi lay déglu. Mm. te bokkuñu ci nga xam ne moo di Tino 100 cent famille bi. Mm. nan nga relation bi nga am ak ñoom nan la ba ñoom ñu la mën di la bàyyi xel saa su ne. bon sama relation auditeur auditrice nag jàmm ak salaam la parce que nekkul fii kese laay déggante ak ñoom non non damay déggante ñoom si rajo bi damay déggante ak ñoom si téléphone bi. parce que man ak ñoom suñuy diggante jàmm la salaam la rakk la mag la yaay la doom la lépp la parce que tey jii nii nit soo koy jàpp da koy jàpp moom kat nu mu la jàppee man damay wax question de euh, animateur benn mbubb bu ngay sol la boo ci nekkee nekk nga si boo paree da koy jël teg ko fee man ak ñoom mosuñu am benn wax posé bu dox suñuy diggante man ak ñoom lépp nice ku ma xam ak ku ma xamul ku ma xam dem ak ku ma xam tey ku nekk si pour cent ku nekkul si 100 pour cent bi. man ak ñoom suñu wax jàmm ak salaam franchement. loolu neex na di leen fàttali ne yéen a seen émission ndaje bi tey ñu seet si woon ki nga xam ne moo di Dj Tino borom 99 usine poobar borom émission ndaje bi fii ci Top FM Dakar 97.8. yow Tino ñu gis ne euh, ñëw nga ci kër gi di Top FM amaana ñu ngi fi fekk bari nañu am nañu ñoo fi jiitu am na ñu la fi jiitu mais sa relation ak ñoom nan la tëddee ñi nga xam ne ñoom nga bokkal di ko di liggéeyandoo. bon sama relation ak ñoom. Euh, jàmm ak salaam la ne parce que man ni ma ni ma leen jàppee ñoom noonu lañ ma jàppee kër gi ñëpp nag mos ma fi xuloo ak kenn euh, Tino aussi tamit mos fi jot ak kenn parce que dara boo si nekk mooy li ma wax tout le temps da nga koy dundal soo ko dundee maanaam man ak ñoom dañoo bokk ndey bokk baay di waxtaan lu ne fii bokk aw ma fi noonu ah wala boog gisuma ko man ak ñoom ñoo def ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy defandoo lépp yow li ma wax ni xam nga si dara. tino day pare émission midi sa day toog fii ba benn heure bi soo ko ñibbi loolu jàmm moo ko waral man ak ñoom franchement euh, lu ñaaw amu fu lu nice moo fa am raf na di jëti no bok na nday ak bay ñi nga xamne di équipe top fm bi yépp liko dalé ci DG ba ci gëna soufé soufé di jëti no nga nek euh, nit ko xamne né borom tour nga ñi ngi lay dégg fu rajo maanaam àdduna bi yépp koy rawati na nga ñu am site ñepp di la gis sa koñ ngay genn na ngay dundé ak ñi nga xamne ñoy sa entourage sa sa sa waa koñ mm. ba xam da ngay genn di laqatu wala da ngay genn and ak sa fonté ak ñom bokk nday ak bay ndax mm. liñ né nit dafa complexe wa sama koñ euh Euh, tawféex la parce que tey sama waa koñ yéex nañ xam sa man mi animateur rajo la parce que lu tax loolu du ma ko doxee te du ma ko waxee mooy li ma wax tout dara boo su nekk da bàyyi gars yi du ko viir kat jëmm ji mais pas nga nekk si dëkk bi di woon maay di jiitu maay nangam man ak ñoom euh, bañ a xamee ba tey man mii kat animateur te rajo laa nekk doo ñoo ñëw wéeru sama ginnaaw dama xelal dama teg si code émission ñuy déglu di ma woo franchement euh, waa géej Géejawaay parce que booy déglu émission chaque jour da ngay dégg euh, DJ Tino from géej waay mooy sama fierté lépp lu ma am tey fa dama ko fay yóbbu parce que ndaanaan yu bëri te jii nii Géejawaay lañ jógee Boubacar jaalo animation Géejawaay la ko jàng bëri na et cetera et cetera ba muy jàng animation boobu moom ak sama ne yaay ñoo doon ànd kon Géejawaay bëri na ay ndaanaan mais francement waa Géejawaay moom aw ma seen fay jokko njar hmm. waa gis nga sama gars yi tey nag ñëwoon nañ seesi ki nga xam ne moo di DJ Tino fii nga xam ne moo di Top FM Dakar 97.8 ñu waxtaan ak moom mu wax ñu lu bari ci moom en la ñu wax dafa tënk lépp wax nañu ci li nga xam ne moo di jaar-jaaram wëlbatiku wax ci li nga xam ne moo di digganteem ak askan wi. bon sama derrière moo nag di siyaar jamono ji euh, képp kuy déglu 97.8 aussi tamit di siyaar jamono ji képp kuy bàyyi xel Top TV l'officiel UCTM euh, di jël tamit euh, buzz bi nga xamante ne nii si lañ amee deux ans yi nga xamante def nañ ko si Top FM di ko jox waa Sénégal di ko jox auditeur auditrice UCTM di ko jagleel 100 pour cent euh, ci non famille parce que fi képp ku ñeme dañ laa dee ndax xam nga imaginer tey benn xale nekk si biiru mag ñi. muy peut-être émission bu may def yomb na yombul muy 10 heures jusqu'à midi kon a xam ne heure bi ñu fi nekk kenn du ko werante mais teewul du Tino dafa ñëw dugg seen biir imposé boppam ba ñëpp di ko dégg kon loolu euh, sant yàlla la bon di kontaan tamit ku baax a baax si euh, seet bi ngeen seet si tey euh, di jiitanoo yéen en tant que Top TV professeur yéen itam di leen siyaar gu baax a baax si déplacement bi aussi tamit di ñaanal Sénégal jàmm weeru koor bi nga xamante tamit aussi nekk nañ si kenn ku si nekk nga am si jàmm ak salaam li nga bëgg sa xool yàlla def ko gu baax si ziar ak si baatin l'essentiel daal siyaar naa ñëpp ku lim juum ba cat waa kay sama gaaj yi rafet na ba pare la ñuy wax euh, ñi ngi leen di jox digg daje ci yeneen émission beneen dox daje incha allah rabbi di remercier nag ki nga xam ne mooy di sama tailleur di Bass Création moo ma defal nii moo ma génne fii te di remercier ki nga xam ne mooy di sama caméraman maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje prochaine fois incha allah